stade olympique bu Alassane Ouattara yóbbalul dara fan zone bu Yamoussoukro te fii boo fi yegsee bu xante bu metti la pour dugg fi nga xamante ne moo di village Kane waaye ba duggee ci biir nag ci lu toll ñaari junniy supporters ñoo fa nekk pour ñëw saafonteeg ñi nga xamante ne ñoo di éléphant yi te fii ci village Kane bi mu ngi xumbata dagan te ambiance bi foo ko natt weesu na ko même bu dee sax ay waxtu rek moo des ñu amal coup d'envoi bi waaye gannaaw ambiance bi ñu tàmbali li nga xamante ne moo di les choses sérieuses waaye bu ñu fubalee ñeenti minutes ci la Sékou Fofana laxa caax yi waaye fi nga xamante ne moo di village bi foo sax ni mbattu mu takk te si benn bi boobu sax ci la ivoirien yi demee ci vestiaire yi waaye bu ñu dellusee si 55 minutes de jeu bi ci la Jean-Louis Crasso marqué li nga xamante ne moo di deuxième but bi waaye gannaaw ba mu ko marqué ci la supporter yëpp màbb ku nekk di daw di ut foo jëm. bi arbitre bi sifflé fin de match bi supporter ivoirien yi mbëgte ak bànneex moo nekk seen xar kanam yi ñuy defante ay câlin di fóonante comme ni ñu koy waxee rek c'est la Côte d'Ivoire qui gagne.